macha allah jërëjëf sëñ Moustapha Kare kàlla macha allah kër Serigne Matar Diène na kuréel social ci tarib alxuraan bi nga xamante ni si moom la donga yi amal waaye nag ñu dugg ci ci waañ wi fekk fi sëñ Mohamed euh, mu baax bi nga xamante ni si mooy jëwriñu daayira Jaalibatul Maraaxib sëñ Mohamed ñu ngi leen waaw ñu ngi lay nuyu baax te dina ziar di jiital si nawet bi ziar bi sëriñ Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ak euh, mboolem taalibe yëpp di ziar sëñ Maxtaar mi nga xamante ni si moom lañ àndal liggéey bi di nuyu itam yéen waa Tawfekh Production bu baax a baax. waaw sëñ Mohamed tey ñu gis leen ci waañ bi ñu buggoon a xam euh, euh, tey waañ bi nu ngeen ko dundee ci bisu tari bii nga xamante ni si moom la Serigne Matar waaj ay bis waaj ko ay fan ba tey ñu egsi ci ànd ko ak yéen ñu gis leen ba ba léegi noppaloo leen ngeen nekk ci waañ bi tabaarikàlla macha allah nu ngeen dundee waañ bi ndax man na noo xam programme waañ. waañ bi moom wax dëgg yàlla depuis bi ñu waajee bis ba léegi ñoo ngi koy waaj te itam waaj nañ ko ci fànn yëpp. di sant bu baax a baax a baax comme ni koy leerale rek waaye ñu ko ci fànn yëpp boobaa léegi ñu ngi siy def ay ndaje di si waxtaan ba tey jii ñu egsi fii di sant itam di préféré di sant mboolem waa daar yëpp ak mboolem ñi nga leen àndal liggéey bi mboolem ñu ci yor poste sant nañ leen bu baax a baax a baax di rafetlu kàddu bu dee mbir waañ moom mooy li ma si leeral rek xam naa suñu altaan gi mi moo yor waañ bi te itam moo ma si gën a mën a ay leeral bu baax a baax di waañ bi. te di leen wax suñ kàddu yal na leen fekk ci jàmm ci seen bu mag bi di Tawfekh Production kon mu mel ni seen teewaay fi dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ndax eh, lii ngeen def day lu am solo ndax nit mooy koo xamante ne si fu mu fekk lu baax mu siiwal ko ba ba ñëpp mën cee jot ngeen xam ne lii mel na ni am na ñoo xamante ne si bëgg nañ ko te xamuñ yoon woon koy defee day mel ni sëñ Maxtaar day ni wan day ni wan yoon woo xamante ne si suñ sukkandikoo ci lii rek dañ dañ ciy mën a roy def mu nekk roywaay boo xamante si mboolem jullit ñi nga xam ne suñu borom dogal na ñu mën comme li mu mën mën koo def comme ni mu ko defee waaw incha allah. daal ñu gis euh, weeru koor bi ñu gis leen tubaari euh, tubaarikàlla macha allah ndogu yu riche yi nga xam ne doon ngeen ko amal ci daara ji euh, bu nu xam bu nu bëggoon a xam ñaata mbana ngeen taal ak waañ bi programme waañ bi nu mu demee ndax. waaw waañu nag su fekkee comme li li nga xam ne jot nañ koo taal. mi ngi toll ci vingt cinq mana waaw vingt cinq mana ak yeneen togg yoo xamante ne si waajal nañ ko ci yeneen bërëb yoo xam dañ ko indi fii ndax soo xoolee mbooloo mi ak ni mel war ngaa xam ne li nekk ci waañ yi soo xoolee sa gis-gis war ngaa mën a xam ci gàttal daa dul arrangé mbooloo mi nga xam ñoo fi ne te it li fi nekk ci mbooloo xaw naa bëri loolu day day indiwaat benn firnde boo xamante ne sëñ Maxtaar suñu borom dogal na ko mu nekk koo xamante ne si ku kuy jëriñ askan wépp la ndax dëgg yàlla turam wi rek day jëriñ lislaam mooy sëñ Maxtaar social te l'islam lim gën a bëgg mooy social mooy jàppalante seen i mbokku jullit loolu dañ ci profité wax ci nga xam ni li liñ taal ci ci ci mbara daal njort na ni moom mun mun mun ta dajale lépp waaye suñu borom dogal na xëy na am na yenn xéewal yoo xam ne des na ko waajalaat ci yeneen i bërëb mën koo indi fii ngir ngir ñu mën ci xéewlu waaye ci gàtt daal ñu ngi fi taal ñaar fukki mban ak ak ak juróom moom lañ taalagul ci wàññi incha allah. mu mel ni ci koñ bi la nekk sëñ Matar bi mu waaw loolu nag xanaa boole ko sant sëñ Tuubaa ak sant ko moom moom ndax suñu borom saa su lay dimbali da koy jaarale ci doomu aadama ndax suñu borom nekkul ne day wàcc rek euh, dimbalil la boppam da koy jaarale ci ci doomu aadama ñun nag suñu yokkute ci daara ji ci wàllum ci wàllum saahir moom sëñ Matar da cee jàpp bu baax a baax ndax ay yeneen i xëy na sax moom bëggul loolu waaye ñun des na ko wax ndax nit su la jàppee da nga ko war a wax ay matériels yoo xam te ñun ban ko dalee bëgg yàgg na lool suñu borom dogal bi bi mu ñëwee tàbbi suñ suñ suñ biir lu ci bëree bëree bëri bëri am nañ ko lu ci mel ni ay rajo ak yeneen i bagage yoo xamante ne si jëflante gi ñu jëflante ak moom moo ko waral loolu it nekkul waa daara ji dong ndax soo nee waa daara ji day day yem ci daara ji mais jëmmi waa koñ bépp képp koo dëkk mi ko rek li muy wax ci seen waxtaan benn benn kàddu lay doon loolu ak sant la goo xamante ne si ñu ngi koy jotal mboolem taalibe yëpp di ko ko jotal moom mel ne ko ku mel sëñ Matar dinañ jël waaw ku suñ ci amoon ku mel sëñ Matar jël moom wax dëgg yàlla ñëppay jël ndax kuy koo xamante daa dëkkee ci ci di dimbil doomu aadama kooku bu ci ne su ko amoon rek dana dana dana taw féexe ku xool ay jamono ci ginnaaw ak léegi war ngaa xam ne ak yokkute am na ku daan ñëw ci koñ bi lu ci ëpp da daa yor sa ter torse di nit mais lu mënti doon soo ñëwee ci bi war ngaa xam ne sëñ Matar def na fi dara ndax lamp yu baree bari ginnaaw yàlla su fi amee moom moo tax kon loolu ak ak cant la ak cantu koñ bi lay doon waaw xam am nañ barke leen di euh, wax ngir waaw loo ñooñe moom ginnaaw ginnaaw dogalub yàlla ndax xaalis dafa sax ci xol day am loo xamante si ndimbalu suñu borom suñu borom su la dénkee ba noppi boole laak boole laak xol boo xamante si da nga mën a génne te doo ci yëg dara loolu ak cant lay doon waaye ñi ngi ñaan daal képp koo xamante ni si suñu borom dogal na nga man li mu man ñi ngi leen di ñaan ngeen di ko di dimbali nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi maam nit ñi nga xam ñoo nekk ci koñ yi képp koo xam suñu borom dogal na nga am lim am wala nga mën lim man ñi ngay fexee def ni moom ci roy ci moom ndax ab royuwaay la ñun ñii ni ñëpp xam na ne ñun royuwaay la wax dëgg yàlla ku ni moom su koñ bépp amoon moom kenn dootul wax dara

waaw soxna sa diggante ak am na loo ci mën a waaw ndeysaan ñoo ngi leen di siyaare bu baax Abdou Salaam di kontaan ci teewaay bi am na solo di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi euh, sëriñ Maxtaar Jenn mi nga xam ne moo fi dajale nit ñi di julli sant yàlla junni ci yonente bi sant Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga xam ne lii lépp moom moo ko waral ñoo ngi leen euh, sant bu baax a baax soxna Ami moom sama mag la sama doomi ndey la sama lépp la daaray alxuraan la joo xam ne dañ ko fay def di ci jàngal ay nit di ci yar ay ci tarbe ay nit ñu nekk ci condition yu am solo suñ mataat jenn ñu gën koo xam suñ mataat jenn social mu doon nit ku baax a baax koo xam ni li muy def ci mbokkam la ko njëkkee soog koo yóbbu ci mbedd mi mu def fi néegu yàlla bu toll nii ñu war ci julli loolu rek doy na sëkk te ku ne xam na li suñ borom wax ci néegu yàlla képp ku ko tabax tabaxal na la kër ca na